balaa laaj. booy wax yow. dama ne la góor mosulaa wax yow Bombardier boo xeexee ma duma la boo bëree ma daal tur buñ lay woowee wuy doog tur boobu ngay mujj a wóoroo. dama sakkanal dama am énergie boo fees dell. yow laa wax boo xeexee ma duma la boo bëree ma daal. damay sóob yow man boo xeexee ma duma la boo bëree ma daal. du ma kuy sóobatu. barke Serigne Sall bi ñu nekk Serigne Sall ngay sóob non mais mais mais per garaawul yàqul dara non mais yàqu ay eh, per gaso makan makan makan kaay nii per gaso xewi na ana makan gas gas bu yàq sa signature demal toog non pare bu ñu pare bu ñu non ma gën même paa bi léegi dafa xew yaa xew na paa bi dem toog il est trop sentimental bàyyi na rek mu neex fes si fes la war a neex. wax leen ci micro yi Aline Gueye demal nga toog nga bàyyi ñu mbokk yi le premier janvier arène nationale drapeau Aziz Mansour Mbaye yaakaar naa ni bis bi jaay na boppam ba pare Balla Gaye 2 bisam ku ne xam na ni mu mel Bombardier bisam ku ne xam na ni mu mel mi ngi am ci arène nationale la Dolkin de la lutte moom moo ko wootee Papa Sall bi nga balaa ñoo tàggatoo. Modou xam nga waaje dafa fekkoon ñaari waay di bëgg a xeex mu ñëw rek ne eh at leen kii mën kii ñu ne ko mais yow ñuy songoo ko ñu nga ne kii mën kii noo ko xam mu damaa xeex ñoom ñaar ñëpp. sama question xam nga fa la jëm ñamante woon ngeen yéen ñaar ku ne xam na li moromam di sax combat bi lu koy daan yéen a bokk question bi. Bombardier wul. non doo xaar ba mu jege ngay wax li koy daan ku si nekk koy daan stratégie ngay def indi ko ak sa def stratégie bi ñu ko voilà. yàlla mooy maye ndam ñoo ngi koy ñaan di ko sàkk suñu borom mais luy maye ndam mooy da liggéey am doole wóor sa bopp gëm sa bopp bi les portages loolu